mois d'août 2020 état-major général des armées ak ANAT dañu signé benn mémorandum mémorandum boobu dafay fixer cadre bi nga xam ni moom la ñuy am suñu collaboration suñu partenariat cadre boobu dafa prévoir ay activités de formation tey jii nag la ñu soog a jeexal première session de formation bi nga xam ni moom la ñu commencé ça fait deux semaines au profit des personnels militaire de la gendarmerie et de la police formation boobu dafa am solo bu baax a baax a baax ndax dafay permettre ñu renforcer xam-xam bu suñu personnel bi ci domaine technique ak domaine technologique bi nga xam ni moom moo leen di permettre ñu maîtriser li ñuy wax information géographique te yéen ñëpp umpalewu leen ni maîtrise u information géographique pour ñun militaires yi daf ñuy permettre ñu maîtriser beneen affaire boo xam ne ñu ngi koy wax une euh, euh, comment dirais-je euh, une fonction stratégique ngeen baal ma fonction stratégique fonction stratégique boobu ñaari élément ñoom ñoo ko forme benn bi mooy connaissance xam-xam beneen bi anticipation fagaru ñaar yooyu soo ko boolee nga maîtriser leen daf lay permettre nga créer les conditions optimales biy tax planification booy mënti def ak action booy mënti def ci armée ñu mën a am dans les meilleures conditions possibles donc da ngeen di gis ne kon formation bi dafa permettre ñu déclencher benn chaine de valeur boo xam ne daf ñuy permettre ñun militaires yi ñu nekk dans de meilleures conditions pour def suñu liggéey de sécurisation de notre territoire et de protection des populations et de leur bien ma wax sànq aussi ne tey jii sécurité ni mu demee ñëpp xam nañ ni pour que ñu mën koo maitriser de manière durable il faut que nit ñi joxante loxo parce que ni mu demee la typologie typologie soci euh, sécurité dafa laaj ñëpp jàpp ci donc partenariat bi dafa war a doon partenariat boo xam ne dafa war a inspirer ñeneen ñi pour que toutes les franges de notre société se doon la main pour que ñu mën a liggéey ensemble pour mën a gérer et sécurité bi nga xam ni moom mooy suñu sécurité réew gis ngeen li xew ci sous-région yi sécurité dootoo xaar ba mu dégradé wu da ngay anticiper donc li ñu def nii tey bokk na ci li nga xam ni moom la ñu war a def pour que suñu société nekk en sécurité. comme ni ko ni ko ni ko mon général waxee dañu am benn partenariat pour ku nekk former keneen ki pour que jumtuwaay yi militaire yi di di di yore yi nga xam ne ne mun nañ si accompagner ANAT ñu accompagner si ANAT. anaat aussi tamit jumtuwaay yi mu yor yi mu accompagner ci militaires yi léegi nag euh, si ni mu ko waxee ci formation boobu formé nañu euh, formation mu ngi doon tourner autour de la géodésie géodésie nag moom mënu ma ko wax ci ci olof euh, topographie tamit mënu ma ko wax ci olof mais ñëpp Sénégal je pense que ñëpp topographie la ñuy wax la cartographie, les systèmes d'information territoriale, la télédétection, formation bi à peu près si loolu la gën a tourné te loolu nag mooy li nga xam ne ne moom la ñuy yoree moom la ñuy def pour organiser ay espace te te ñun su ñun aménageur de territoire li ñuy njëkk a wax kuy aménager li ngay njëkk def moom mooy sécurité bi sécurité territoire bi ngay njëkk a wu te sécurité territoire suñ koy wax euh, armée moo tax ñuy wax waaw euh, maintenant nag comme ni ma ko waxee woon en français euh, monsieur le président de la république euh, dafa am vision boo xam ne ne dafa bëgg connaissance bi mu law ci biir réew mi parce que connaissance moom mooy indi développement connaissance boobu nag bu mu nekk waa ANAT rek am benn connaissance si si seen wàllu liggéey ñu denc ko su ko armée soxlaa nañ leen ko jox su ko urbanisme soxlaa nañ leen ko jox anaat tamit su soxlaa yeneen connaissance yi mu dem si ñoom noonu la ñuy la ñuy la ñuy vulgariser noonu la ñuy diffuser connaissance yi ba développement mu am loolu moo taxoon nag tey dañu kontaan dañu bëgg bu baax a baax parce que lii moom mooy jëmale réew kanam lii moom mooy développer réew kanam ñun suñu liggéey pour mu baax il faut que ñu am sécurité te sécurité bi ñoom ñoo ko yor moo tax aussi tamit maa ngi wax moo général que armée mën na gën a compter si ANAT. Euh, comme ni mu ko waxee aussi tamit ñi ñu former man maa ngi leen di invité ñu bu ñu bàyyi parce que formation bi aussi dafay laaj perfectionnement dinañu dem ñoom tamit ba nekk ay ingénieur yu mag a mag si domaine yu ñu leen former fii nii ba ñu mën a former ñeneen ak ñeneen suñ formation bi lawee fu nekk rek dootu ñu jëlati ay nit di leen yóbbu ay France ou ay Nigéria di leen fa former